xëy na waa ji dañ ko fu nekk lañ koy jëndee dinañ ko jënd ci entreprise yi dinañ ko jënd ci usines yi dinañ ko jënd ci ci environnement yi dinañ ko jënd un peu daal fu nekk dinañ ko jëndee ferraille ñii dañuy jënd ferraille di tardé ci oto yu ndaw yi di yóbbu ci indien yi ñun ñii ñuy jënd ay porom ak ay armignon ak bu ngoonee ñu yóbbu ci biir. indien yi ñoo koy exporté di ko yóbbu Dubaï wala Inde wala France wala Italie ça dépend ci. pay bi soxla ferraille bi rek. am na ñuy saj di indi kay dañuy saj ferraille di indi dañuy saj lu ñuy jën fii daal léeg-léeg nga gis ku saj indi. xam nga fii canal yi dafa am fer léegi fer yi après gars yi dañ koy sàcc di ko def ay kii ferraille ah mais sàcc bi nag moom kan ay sanction xanaa dañ ci war a jëg ci sanction parce que lii itam xam nañu boo demee ci ferraille yi foo dem da nga koy fekk ferraille yi. daal vraiment danger la parce que ferraille bi ñoom war nañ def leneen lu dagg ferraille parce que lii danger la dañu ko def pour protéger tali bi. pour nit ñi bañ di traverser tali bi. pousse yi ñun ñu yor place yi ñoo koy moom ñun ñooy jënd suñuy pousse di jël xaalis di jox xale yi ñuy dem di wëri ferraille suñu demee jënd bu ñu ñëwee jaayaat ñu leen di jox xaalis quoi. maanaam boo gisee booy yi nii ñu toll yëpp ñàkk liggéey rek moo ko tax. dama dem almadi dox almadi walla biir taawan bi rek fu ma dem rek mooy loolu. non ñun dañu ñun amul problème ba baare amul problème ba noonu rek. sàcc bi moom tegu aussi ñu ko ci yoon parce que bon waruñu ko dindi daal en aucun cas parce que comme dañ ko defar pour sécuriser nit ñi ñi koy sàcc nit ñi daf leen war li da leen di protéger mais buñu nee ba di ko sàcc dañuy lor dañuy lor ñoo xam ne ñoom seen ci bu leen ni bu da ko sàccee jaay ko nga ñëw jënd ko ah teg ko ci sa place exposé ko di ko jaayaat keneen bu doon ni bu état bi dafa ñëw ku ñu fekk lu mel noonu ci sa ci ñu teg la sanction boo xam ne di bu ëllëgee dootu la ko jaral kenn du ko ku ko kenn du ko jël xam nga ne bu ne jaaree fii yor feeraay moo na wax ne kii de koo taj non je mooy yi ñu def si caniveau yi. ci caniveau yi. waaw fer yooyu ñu ah, yooyu duñ ko jënd yooyu moom foo laajte fii ñemewuñ ko moom gañ li bokk ci nguur bi moom dara lañ ci waxut. ñun ñi nga xam ne ñun xam nañ danger bi ci nekk ñun duñ ko jënd ko parce que regard yooyu man même man action chef de quartier la yóbbu naa ci ñu bëri police ci regard yooyu. da ngay ñëw di ko jaay fii man dama lay jàpp yóbbu police soit ma woote commissariat ñu ñëw jël si parce que danger la d'abord oto mun na ci dugg daanu nit mun na ci dugg tànkam damm xam nga te sécurité la bu ñu def ba pare nit ñi ñëw di ko dindi di jaay xam nga kooku violation la ñun man par rapport man ak ñeneen ñi koy jënd man bokkuma ko moom. da nga war a xalaat ne yow tey jii am na ñoo am si seen i bët neexul. yàllaa leen ko teg seen yet lañ yor di dox. comprendre nga buñ doxee ne ci surux. yow amel ngeen ak ah. yoo xam ne gars yi erreur la te ñoom toujours si traité waat bi lañ jaar di dem xam nga li tamit rafetul quoi et euh, kii naaw di si dugg nii day sakk kii ah, ndox mi bu demee du dem ah, ko dañee indi ndox mi nangam nangam nag fekk parce que ñu si bëri population ñoo koy def waaw comme commencé nañu ko dagg def seen sensibilisation mais léegi prochaine fois ñu bañ ko dagg parce que commencé nañu ko dagg ñu bañ ko daggaat si def si yoo xam ne que sécurisation bi la parce que lii moom sécurité parce que pont yaa ngi ci kaw defal nañu ko pourquoi ñoom mënuñu jaar ci kaw pont bi léegi dañ ko dagg moo tax nit ñi tam di fi jaar conseil bi ma leen jox ñu xam ne ñoom Sénégal lañ dëkk matériel bi matériel Sénégal la dañ ko defar pour aar nit ñi mais buñ ñëwee dindi ko seen bopp la ñuy lor parce que kenn mën na dindi kubéeru ragar dugg ci oto ba pare oto boobu ñëw dugg ci ragar bi daanu mën na ca jaar de mu lor boppam te fekk na moom moo rey boppam parce que li fi nekkoon war ko aar moo ko